mënu leen a tàqale mhm. parce que tamit lépp dafay jëm si askan bi te lépp aussi dañ ciy taxaw rendre ci compte si suñu kanamu borom ni ko monsieur Lo waxee léegi effectivement euh, Cheikh man fi mu fi mu ci ñëwee ak dafa mel ni sax léegi ñi nga xamante ne ñoo ñoo di euh, les guides religieux wala sax ñenn ñoo xam ne ñoo bokk ci famille religieuse Sénégal yi dañoo dem ba engagé wu ci ci wàllum politique te loolu nag li muy indi mooy des fois sax dañuy jël famille religieuse bi nga xam ne moom la bokk ñu ne dañoo far ak diw wala dañoo far ak diw wala dañoo far ak diw est itam bon parce que tamit mënuñu tere kenn mu def politique mais loolu tamit am nit soo amee statut euh, bokk ci famille religieuse itam ndax mën nañ nangu ngay impliqué wu di dugal sa loxo trop trop trop ci wàllum politique ba ñu sentir ne diw fii la far wala diw fee la far est ce itam moo tax jamono ji ñi nga xamante ne ñoo nekk ci euh, kër kër kër kër diine yi di def politique wala sax di ànd ak ñi nga xam ñooy politique est ce que ñoom sax ñoom ñooy tax tey yenn kàddu yi suñ ko déggee ci seen i ci seen i kilifa ñoom ñoom ñu ñoo en quelque sorte ñu mën a lañ mën a joxe baaraam tuuma. waaw Jérôme maa ngi lay jaajëfal si sa question bu am solo boobu noonu donc euh, xam nga euh, les guides religieux quand dara lu leen tere ñu faral nit wala ñàkk ko faral. amul dara amul benn limitation mënoo ne nit ki euh, du moment que d' accord nga ni que le guide religieux c' est un citoyen. citoyen la boo xamante ni am na ay droit comme ni mu amee ay devoir donc citoyen boobu mënoo ko tere. léegi nag yàlla dafa dogal mbir boo doonee un guide religieux. ñi lay topp dañoo bëri. ñi lay topp tamit ànduñu forcément ak ki nga àndal. loolu tamit day indi ay euh, dafa laaj foofu noonu nga am une certaine subtilité boo doonee guide religieux mm-hmm. mënoo par exemple ne affiché wu carrément ne man waa Pastef laa ginnaaw bi nga amee ay taalibe yu bokk APR am ay taalibe yu bokk euh, feneen ak feneen ak feneen ak feneen man gis naa benn taalibe boo xamante ni ren jii demul gàmmu ji du mu wax fan la fan la waroon a dem mais demul mais biñ ko laajee lu tax demoo dafa ne ren jii sama sëriñ kii la faral moo tax du moo dem gàmmu ji donc déjà ça c'est un fait mhm. empirique ah boo xam te ne kenn kii ma c'est un fait que j'ai vécu quelqu'un koo xam ne chaque année da doon dem gàmmu ji ren demul parce que nee na sëriñam dafa jël position pour un leader mhm. léegi nag dafa am loo xamante ni euh, Fatou wax na ko sànq par rapport à la politique nee na politique c'est l'art de gérer la cité effectivement dëgg la mais fii au Sénégal dans la pratique ni ñu gisee politique mooy l'art de détourner les derniers publics voilà. Ah, ah, mais lu tax euh, sénégalais non lu tax Sénégal ñu sib politique politique à l'origine de façon étymologique c'est une fonction noble l'art de gérer la cité mooy da ngay xool nan ngay def ba dëkk bi dox tegu si yoon ku nekk la nga yelloo mu fekk la fa nga nekk euh, de façon résumée mhm. mais bu ñu demee ba politique léegi doon un raccourci benn mbir moo xamante ni mën nga yeewu léegi nga am 1000 francs sa compte bancaire dans dans une semaine dans un dans un an que tu te trouves avec des millions ou des milliards ça pose problème ñu gis la ngay yeewu di euh, euh, di dawal sa vélo suba nga dawal Mercedes c'est un problème donc yooyu yëpp day tax ne sénégalais yi dañuy sip façon politique boobu nag bu ñu gisee sëriñ buy soogu si loolu mën nañ ko gisee neneen mhm. mais sëriñ yi tamit foog ñu mesurer ñoom seen dayo xam naa ni sax xam nañ ko gaa mais dafa am fu contexte bi toll foo xamante ñoom dañu war a mesurer seen dayoo. mooy lan mm-hmm. lu tax politicien bu jóg rek su bëggee falu dem si sëriñ yi c'est parce que xam nañ ne sëriñ yi ils ont un certain pouvoir. Mm-hmm. donc pouvoir boobu noonu ñoom dañu ko war a téye seen bopp mooy man li ma gis politicien bu ñëw si benn événement effectivement xalif bi na ko recevoir mais dans une rencontre boo xamante ni c'est privé. Mm-hmm. audience privée lay doon da ngay ñëw nga rencontr le président Macky Sall mais de façon privée. ngeen waxtaan mu wax la nga tontu su génnee s'il veut il n'a qu'à faire un communiqué dirigé rencontrer le xalif on a parlé de ça et de ça ça n'engage pas le xalif mhm. Ousmane Sonko yónni ay ndawam ñu dem waxtaan ak xalif bi en privé ñu génn buñ toogee nag ca bayaal ba wax dëgg yàlla nañu wax lañu ñu fa indi mhm. on est de célébrer n'est-ce pas euh, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mhm. donc nañ ko célébrer nañu wax waxu islam nañu wax li boole askan bi tey bu su ma doonee euh, jullit nga doon jullit ñiy waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi amul kenn kuy jóg gestu wala mer wala buub ay bagages am ne maa ngi ñibbi. Mm-hmm. mais nag su ma ñëwee toog nga may wax Macky Sall wala di ma wax Ousmane Sonko te man gisuma sama bopp si ñooñu sëñ bi soo moytul damay lem samay damay lem sama sajaada. Mm-hmm. romb la dem ñibbi sama kër. wala itam di lim ay waaw d'accord mais xam nga xam nga on n'est pas là les encore une li may wax seen fonction foog ñu jëlal ko seen bopp seen pouvoir foog ñu mesurer ko ils sont pas là pour faire le bilan mhm. Macky Sall le président de la République il a des hommes pour défendre son bilan ce n'est pas au marabout de défendre le bilan de Macky Sall Macky Sall am nañu ko il a un porte-parole du gouvernement dans son parti il a des instances yoo xamante ne tey bu ñu bëggoona wax li Macky Sall def ci Sénégal mhm. mën nañ ko waxal seen bopp avec des illustrations sëñ bi encore une fois. Mm. man sama gis-gis mooy sëriñ bi vraiment nañu ñu sëriñ yi nañu jëlaat. ñoom li ñu moom. Mm-hmm. parce que ça ne sert nga génn nga tàgg président mu génn. Mm-hmm. gars yi di yuuxoo gis nañ ko fi nga tàgg président ci biir. Mm-hmm. mu génn gars yi yuuxoo mooy yow la nga wax ak li peuple bi wax du benn. donc loolu tamit ay contradiction yoo xamante ni day day tax léegi comme ni ngay gis yenn discours yu yu ëpp yi mm-hmm. nit ñi di ko am si yenn si maara yoo xamante ni dañ leen war a ormal mm-hmm. jox leen cër man d'accord naa maara bu nekk war nga mën a def politique mm-hmm. mais quand même mu rester dans un cadre privé boo xamante ni yow mën nga ko doxal bu la neexee nga dem jënd carte membre am bu la neexee mais nag bu ñu toogee wax dëgg yàlla politique indiwuñ nañ wax waxu yàlla neex na yonente bi sallallahu alayhi nee na saxaaba yi def nañu wax nañu nee nañ lii après bu ñu tasaaroowee ku nekk nag après tu retournes à tes occupations man man noonu laa ko gisee. encore une fois. jërëjëf zéro. léegi léegi monsieur Lo ñun fi ñu leen fi ñu leen di euh, fi leen di interpréter à chaque fois mooy euh, gis nañ euh, situation Ousmane ko ginnaaw bi mu amee ay tolof tolof ci wàllum yoon ak yoonal ba ñu jàpp ko tëj ko dem ngeen daanaka daa ci foyer chef religieux yu bëri. Touba sax daanaka moom lañ leen di gën a gis ngeen dem def tête à tête yooyu askan wi ak ñëpp ngeen eggee li nga xamante ni moom ngeen waroon eggee xalif bi wax ko ko jafe-jafe ak tawat bi nga xam ne Ousmane Sonko tawat na ko waaye itam moom am na digle boo xamante ne defoon na ko euh, euh, ci ci ci seen i dossier jamono ji itam ñu gis ne ba léegi daanaka li ñu yaakaaroon ci euh, ci mbir mi daanaka am na lu bari loo xam ne dafa des ba certaines personnes se posent même des questions est-ce que Pastef commencé wul di am benn ñu koy sax ñàkk soutien jëmale ci ci ci foyer religieux yi yéen yoon de votre côté lan ngeen gis. waaw effectivement ñàkk soutien ci foyer religieux yi amul cest à au fond foyer religieux yi dañ fi toog pour Sénégal hmm. boo gisee ñu jóg dem euh, ci sëñ Muntaxa dafa doon kilifa bi nga xam ni véritablement lépp luy xew ci Sénégal comme ni ko Fatou waxe hmm. am na ci kàddu am na lu mu ci defar hmm. amul lu mu yàq nag waaye am na lu mu ciy defar kooku kilifa la bu mbir xewee da dem àgge ko mbir mi ndax ëllëg bu dara bëggee am ci réew mi mën na la ñaan parce que bul fàtte ni deux mille vingt un bi ñu demee ba réew mi bëgg am fu mu toll euh, ba président di wax jaaxle sëñ Muntaxa dafa wax ni nañu bàyyi lii ñu teg ko ci suuf am ñu koy werante Ousmane sonk ci boppam ni leen sëriñ bi ñun def ñuy digal ñu def du ñu ñaan loolu c'est extrêmement important mmh. loolu mooy respect bi nga xam ne jox nañ ko kilifa diine yi kon tey bu ñu demee ñu ne mbir ma sedd na ñu dem ba deux mille vingt trois. Mhm. ñu sulliwaat mbir mi ba ci indi ay mbir. kooku man personnellement en tant que citoyen mais en tant que homme boo nga xam ni responsable la de ce pays en tant que aussi euh, homme politique dinaa dem ba ci sañ sëñ taxa ànd ak délégation waxtaan ak moom parce que ñun avant loolu dañ doon dem Touba. Mhm. bul fàtte ni ay murit lañu mooy bi ñu nekkee six ans sept ans. dañ doon dem di ànd ak suñu papa donc fi ñu yaakaar dinañ fa dem wax fa suñu soxla expliquer ko situation réew mi moom it mu am dimension bu nga xam ni dimension nit ñi bokkuñu. Mhm. parfois damay dégg ñuy sikk sëriñ ni bul dem fii bul wax lii nangam fekk na fa muy waxee ak fa ngay dégg bokkul. Mhm. wala moom am na dimension bi nga xam ni yàlla dina ko wan lu nga xam ni yow wanu la ko. Mhm. nga xam ni ce n'est même pas la peine muy intervenir par rapport à certaines choses. loolu dafay am dafa am ñu nga xam ni. am na lu ñu xam lu ñeneen ñi xamul donc dimension bi bokkul donc ñoom li ñu mën a def mooy dem wax leen wante nag li ma xam mooy sëriñ moom comme li ma sëñ Maye wax mooy nguur bu fi nekk ñoom mënuñu nekk en ak nguur. Mhm. parce que ñoom nee nañu dañu am seen ay nit yu nga xam ni yu bare nguur dañ koy soxla ci lu bëri. Mhm. mu ni nag ñoom du ñu kon nekk en contradiction ak nguur. Mhm. mais nag dinañ goo sëriñ euh, kilifa bi ba mu ñëw. ñu dugal ko ci ci néeg waxtaan ak moom wax ka li ñu xalaat digal ko parce que aussi ñooñu bu ñu lay digal sa njëriñ moo ci nekk. Mhm. il faut que la nit ñi def la part des choses am na nit ku nga xam ne dafay dem droit vers le mur mais du ko xam mais il faut que ay mbokkam ak sëriñ yi fi nekk ak kilifa yi parce que le pouvoir absolu rend absolument fou. Mhm. dañ koy wax kon bu ñu demee ba nga xam ni Birame Khoudia mii kat nii lañ ko xamee woon mu nekk ku sérieux nekk kuy jàng nekk jàmbaar. nekk di def ay liggéey ñu dem ba mujj mu nekk président de la république am beneen xar kanam bu mu wanee ñun suñu rôle mooy taxaw ni ko attention yaa ngi jëm ci miir bi lii kat dafa am ñu lay jay te ñi lay jay nag ñoom yàgg nañu jay cest à képp ku toog ci nguur dinañ la jay mm-hmm. mais képp nag ku jóge ci nguur dañ lay sikk mm-hmm. wala ñu dem ànd ak ki nga xam ni moom lañ doon euh, sikk démb loolu il faut que président Macky Sall bàyyi ci xel mm-hmm. situation bi ñu nekk ça n'arrange pas Sénégal c'est une situation bu nga xam ne ñu ngi yàq deru Sénégal au niveau national et même international te loolu yëpp jaru ko woon moi je crois que dama ni keroog yooxu yi ñu ko yooxoo metti na ma journaliste bi lu tax mu metti la ma ni que si parce que moom mënoon na fii mu ne fu mu génn ñu ovationné ko. parce que dynamique bi mu jëloon ay nit tënk ko ni que boo nekkul candidat dañu lay porter plainte dañuy dem dañuy xaru lu leen nga dégg. mu xëy suba génn ni nekkul candidat ñooñu toogati di wax leneen noonu mu def. am courage yu ni nekkul candidat am ay nit yu ko doon sóob ba léegi am na ay nit yu koy dugal pour mu tëj Ousmane Sonko pour mu éliminer ko pour mu éliminer l'opposition te loolu jekkul ci deram moom ëllëg parce que ñooñu di ko dugal mais pourquoi il leur a donné tous les moyens pour travailler pour que deram set pour ñu wanee ay réalisation mais ñooñu dañu def erreur erreur bu nga xam ni homme politique yàgg na ko def pouvoir yàgg na ko def mooy ñu jox la ay millions jox la ministère jox la direction jox la tous les moyens nga ferme sa portable ku la woo du la jot ku am si yow soxla du ko faj. <laughs> nga mel na yow da nekk au-dessus de tout le monde. <laughs> mais président rek ngay rendre compte bu ko defee président du ci xam dara dem ba mujj deram yàqu Ousmane Sonko mais amul milliards yi ñu am pourquoi mu dem ba crédibilité am ëpp seen crédibilité ñoo ñëpp. mooy dëgg mooy jëkk dëgg mooy mujj moom dafa taxaw ci dëgg te dëgg googu ci la ñu taxaw te loolu moo ñuy secourir ba fu ñuy mënti egg yi ñuy def yépp ngir caaxaan la je l'ai dit jour parce que xam nga gouvernement fii Sénégal ñëpp a bokk da ngay nekk ci gouvernement démb maa ngi waxtaan ak Mayabe mu ne ma man sanc balaa dëkk maa ngi waxtaan ak ma jëy mais bi ñuy waxtaan dafa dañu dem ba suñu euh, famille dañu duggante Sénégal noonu la mel. bu ma mhm. waxoon ak yow léegi nga gis fu ñu bokki donc Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar loo fi nekk policiers yi mais suñu ay bokk lañu suñu ay xarit lañu gendarmerie mais dañ la ko jox rek démb am na journaliste bu ma ni waaw pourtant jàpp nañu Ousmane Sonko ma ni ko kenn jàppul Ousmane Sonko mu ni ma lu tax ma ni ko sa loxo ak sama loxo ak loxo Jérôme la ñu boole jàpp Ousmane Sonko du APR moo ko jàpp de bu doon APR ak ñun rek léegi Ousmane Sonko mi ngi ci mais dañu jël le bras armé de la population mooy la police ak la gendarmerie te dénkuñu leen que nag pour ñuy jàpp ay innocent di ko utiliser parce que j'ai dit la justice la police la gendarmerie bras armé population bi resteront toujours debout c'est-à-dire yow mën nga leen utiliser torpiller leen mais moytul yar bi wëlbati ko dal ci sa ci sa kaw bul fàtte Karim am na ay temps il était presque impénissable mais dem na ba mu jóge ñu tëj ko ci kaso mënul génn loolu dafa jar di bàyyi xel. d'accord c'est extrêmement important. Mhm. donc li ñuy ñaan mooy ñu bàyyi lii ñuy def Sénégal fi mu jëm baaxul on a eu des morts mënoon nañ ko éviter yàgg naa wax lii raam ci ñag bi la jëkk jëm yàgg naa wax kilifa diina yi kilifa aada yi nañu wax pour président Macky Sall teggi tànkam par rapport à certaines choses te ba léegi la menace est là parce que xale yi mer nañu gis na li xew Kaolack gis na li xew fu ne xel jëriñ la euh, euh, xel njëriñ xalaat lay jëriñ il faut mu réfléchir par rapport à ça mais ñuy taxaw ku nekk naan ko demal gëmmal dóor gëmmal dóor mooy lan gëmmal dóor mooy ne réfléchis pas agi est-ce que agir sans réfléchir loolu baax na oui mooy gëmmal mooy tu ne réfléchis pas tu ne regardes pas ce que tu fais maintenant defal lii teew bul bàyyi xel ci conséquences yi mais loolu ku ko wax ki mu koy wax war na réfléchir mu ni ko yow gëmmal nga dóor. waaye man du ma gëmm dóor mais mais monsieur Lo Fatou Fatou li monsieur Lo wax yëpp euh, population bi dinañ dinañ dinañ ko nangu mën nañ ko dégg mais soutien bi comme comme bi ma doon wax mooy euh, tey kooku bis yi tey xam nga tey fu ñu dem dinañ tudd euh, turu président Macky Sall ci kaw mais tey mbiri Ousmane Sonko. au début ci kaw la dañ daan wax mais léegi dafa dem ko fàttee assistance bi ci waroon amatuñ ko instant yi nga xamante ne ñoom ñoom ko ñoom musaloo ñi ñoom ñoo nekk ci parti ñoo yooyu sonn ni daan ni Ousmane Sonko daan ñëwee population bi yëpp maa béy ko ñëw dafa mel ni loolu sax euh, dégg suñu doon dégg sax délégation Ousmane Sonko ngi ñëw kenn du kenn kenn du sax dem accueillir à la limite donc lan lan moo wax la jox na la réponse bi <laughs> ah, nee la bi mu waxtaanee ku mel ni Cheikh Mahi Niass nee na ko ñoom du